di gaan gu bëri naa tànge mooy weeru mbégte weeru yërmande moo gën ci weer yi koro jàmm ak taw feex laa leen di ñaan alhamdulilah man maa ngi santaat bi ñu yàlla mayee ñu dund fekke waat santaat na yàlla di suñu ngëneel na leen ko def ñu looloo ñu waar asalaamu aleykum aleykum yeey asalaamu aleykum giờ war khá là ngoài đi che khá là ăn nếu ai đều nếu ai yêu cha đi đó là bao số vấn đề cái nào giờ war mag mag ya kama chora wax delor dama lay yeen yo magum jëm nga pato laaj yo pare na delor ya mag de ya wara wor ci xool man mag naa waaye dama feebar sama taaw ko wi dafa gaañu dégg درب جفلة في اليومية وروور خويو سأغيو سدبالي المرخ دور منو ما سخل التاني اه، اه. منو ما سميو يو يا ولفي منو ما التاني ايه ايه كاي كبير يو ديگر دوغو گور يا ولفي دمان دمان دمان كيف يو لازم لا خم غلال لا خلي بي نانكو مويكو dégg nga li ma la wax. eh mënoo koy yedd. ah da da dama lay wax rek da nga koy mënoo yedd kenn xaar ba yedd sa bopp beneen bi sa papa kaw Fi ni bu mu dugg ci kër gi. kaw bu mu dugg ci kër gi. gëna na kër gi ci biti kër gi bu mu fi dugg. gëna ndax jam la jam bu mag la. faytan waaw waxol na la ko. bu mu fi dugg rek. yow xawu ko la bëgg xawu ko. la jam dëgg moy mom voilà. ndekete jàngay musuma woon xam ah jakas ah ak ñànku ak ndumbe nii lay mun a jànge ñànku nee na heure bu neex lay génn lakal waraama la ci ndiyeel jakas ne ko halal halal kuy ñëw ci barke déedéet kuy jàngati fii dangay ñëw si jàngay ndaaya ndaaya ndaaya ay lu tax ñëwuloo si jàngay se se muy si mu li mu jàngatee. bàyyi ma man de ko fay France waxal kenn. yaa mun a fen ngay naka fii nga ne yaa ngi France ngay naka fii si Sénégal fii ngay naka France jàngay laa wax. li sama li jàngay li sama gat. mooy loolu. xanaa ñëwul ngay wax sagat. sama gàllankoor jàng. Oh, yaa xam. waaw waaw ah, jàngo yu neex ah, mooy naka. yow xamul góob naa gën a ko mbir mi daw. ah waaw waaw waaw ah, bàyyi ma munoo way sax jànga yu neex. yow yow yow jàmm. waaw. traître. waaw. wóyul. waaw lan lay naka tere. boo fay tàngal. yow lekk kat gaz nga yow. waaw yow koor sax doo rus. koor sax ngay lekk gaz. koor waaw. Chin. Nyakawal. Oh. Nyakawal. Ya fel. Oh. Fel. Mm. Bay fel. moo gën a dawoon. waaye de toppal bi rek ay wax. yow may ma may ñëw. awoo jox ya, yaa yaa ma nga an ma da mar. Oh, xel oh, bi lii du mel ni doomu guro ngay gens boobu musa bi yàkkatoo ngay wax. waaw baax na cim bul saw sa tuba yi de. waaw yow doo taxaw ne. daa ya, may taxawal lu waaw. waaye toppal kau yëgoon Eh, ni. lan moy xew lan mooy xew. Eh. Eh. yëgoon xew ne. You killing it. Gën na fan kër gi. yow abandonné. kër gi jox ko. waaw yow waxoo dëgg. waxuma la. ba bilaa walaay waxoo dëgg. laal mu ne. sama jabar nekk fii si biir kër. Ndaya. Ndaya kay mu ne. Ndaya. nda wala dafa. wala Ndaya fi dugg yow. kër fi dugg. lu tax yow yaay jaam yow. lu tax yow ndekete yow ndax. lu tax sunu jàng yi ñu def Semu. kan ah man mi yow yow yow xaw ma nga programme waaw waaw loolu sama yoon nekku ci kër gi doo doo fi dugg point sur la ligne eh doo doo dugg eh, ci kër gi tafa tafa xam nga lu lay wax nekkal nit wala nga nekk kon nga wax la nak kon la nak bu fekkee da nga nekk dara nga sama jabar munul nekk si kër bi ba pare nga may wax bul dugg si kër bi kër gi doo fi dugg pour lan may ma ma sa ngati xam joni mi daanu lay ngati ma ah. mi ngati xam joni mi joni ngati nga yow tam ñu ngati la ba nga yàqu léegi sama jabar indi ko sama jabar sama wan ma ñu nokkan ndaaya mi la ndaaya ak tafa ñooy set mu lan la koy xeexal so kaaba gi nii yaa ngi nii kër gi moom dootu fi dugg bu dee da nga koy topp nga di ko jël sa bagage ngeen ànd dem ci bitti. yaa xam loo cay def nag. Eh. ah man may eh. ma nii ma tëj sama bunt. kii waaw tonton Tafa man dafa ah. ah, ci histoire bi. maa ngi takk si seen affaire la yéen ñaar soo su fekkente ne di day dof dof man xuloo ma ma samay sem nee na na kër bu mu may jox fële ah may dem man jàmm laay wut ma sama bagage nga ñëw ñu dem man dew ma. dew ma tay, dew ma suba fii laay toog sooda mbida mbida lan sooda maay wax ak yow ah dew ma tay dew ma suba fii laay toog ci tontoo tafaa wala loo bëgg a wax tafaa lekkul sa di eh nga fase ma tafaa takk ma ok dugal dugal nan dem nan dem waaw tere da ngay foo wala yëfu jam loolu lay jariñ sore da ngay foo wala kër gi dootoo fi dugg ilaa yow dini sore moom insha allah rabbi dam koy may batam ma amuro ko tak ko tak bu saf saf way sama ndayooy sa jabar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 ta fansa kenan sama shawari yoy sajawu ta fa wuji dabam yoy wai sama nai wai sare dan na yoy wai sake sama dabar yoy ta fa wuji sake sama dabar yoy wai sama nai wai wai go go go wai wai sama nai ya am yoy to ba sake na sama sorry naa kattan sama bopp naa ñëw fas si jabar. yow yéen da ngeen di sa ca jabar. sa jabar nangulee ko. xool gis nga bopp ay tey bu subaa. wërëj ma wërëj. extraordinario. ¡Tomándate la ya! Dan kewaktan yang ngetorop. May amna lu koda. Lu dak kewaktan bi. Ta sa ya edro. Lu xew? Tala rek yow. Bul ma won lu yaq sama koor gi dama wor. Yow lu garaaw la lay envoyé ta man kay tàq na daaw. nangu. waa. astafurlah. nga waxati. laa ilaha illallah. <laughs> du moom de. xaaral. te gisoo li ba mu xotti ñuul yi ay waay gàttaayam bi li xam nga ne moom la ak boppam bu rëy waay yow kii nit la wala saako ceeb waa kii wër naa def lii yow kii lu mu ko def lépp des na yeneen sax am na yeneen essay partum gën a garaaw laal envoyé kii de àddinam yàqu na c'est fini fini lii di mel ni daax <laughs> kii si man lay dugg dootu ko defati niti lëmbal bi lembal, lëmbal. barki yàlla. yow li ngay def li ngay def baaxul de. yow des na yu garaaw. jéemal ko envoyé bii doy na. ba pare nag kaay ma wax la kaa bi nu mu tëddee. tontoo Tafa. barki démb laa jot ba sab man ñii est ce que nag ñu man damaa yaakaar ne day waaj sama boos sama boos. est ce que dama la ciy ñamal tuuti rek tuuti laa ci ñamal. c'est normal yàlla tere. ayo envoyé ma ko. oui <laughs> man nag réew mi yëngu na man ñii damaa yaakaar dañoo dof. ay cristal lañ ko taxaw. <laughs> waaw ba pare ba pare nag kaay ma wax moo yàgg lëmbal nag xam nga loolu. baalu moo yàgg lëmbal te moo toog ci yëmbal. waaw mais ñii ay nit lañ. tonton Tafa de sama benn xarit la dem di ko doxaan xamul ne sama xarit la Mariana kooku nga xam ne ci paa la gën a aay. baalu Mariana. Mariana encaissé ko ba mu set. jërëjëf. Mariana xam dafa bëri ay bagages. tubaari kàlla bu ne wërañ faj fukki dafa ak juróom-ñaar. moom la ko moom la moom la iri takkaloo ko ay fer paa bi taxaw ne day lëmbal. waaw man suñu kër gi est ce que nekkul tamit dañoo nekk ci axru zaman man. paa yee lëmbal bàyyi leen kàgg paa yi waaw. waaw noo def ba am vidéo dërëm bi yow. nga fàtte dama kaa invité ndogu pare ma iri ko si néeg bi dama ko doon jàngal luy flexé mu xale yi dañoo génnee tendance bu bees flexé mun naa ma luy flexé ma yóbbu ko si sàmbal simbi ko ba mu set ay Det ay, ay, Eh, barna, barna, barna, barna! Bukan tuyul! Ya. Eh! Wuy, sama lay doy baax wah dama woor waa kii nit la des la yeneen am naa arme de ah. kër gi kay jàmm rek la paix ban paa ya. lañ bois jot ko du yomb la ma man naay dugg ci kaaw yàlla tere ak semu ñoom ñaar la sim moom. bàyyi dem si sim mani yow pour yow. naa encaisser ay saaga. pour yow pour yow. mais man moom baax na man cadre simu du simu nga xam ne daa egg ma nga fële. waa mi ma loolu dërëm gaajo mii di mel ni daf dee dafaa laay wax ay sama boos bi mën nag tay laa joom mi te su ñëwee ne ko di nga lan la signé moi ça dafa ma ma indi ay papier mi xam nga lan la bi man ndax wóoluwuma leen à tout moment mën nañoo jaaral nañ dugg sama nit ñu eggale kaa bi xaar xaar ko jox toog lan la vidéo dërëm bu si feeñ bu hmm. ni sax maa la ko am envoyé yow nit nga ah. loolu nan laa ko mënee yow da nga fàtte dërëm maa la booleeg moom té dërëm sama nit la amna yo xamné dama ko def. vidéo bi du mës a génn. te yow tamit yàgg nañu sekk diw. bàyyi naa sa loxo ñëwal ñu jàll.